ok nos autorités doivent apprendre à faire face euh, L'angakhalati réunion bi le conseil des ministres bon euh, ils ont parlé de l'université de l'école etc les ma ci conseil des ministres mais moi ils n'ont pas euh, rendu hommage à la limite à tous ces toutes ces défuntes personnes yi ñàkk seen bakkan ci manifestation yi. mais nekk nañ ci kii boobu ci optique boobu. c'est-à-dire. maanaam est gis nañ li xew ci dëkk bi est-ce que di lijjanti maanaam di décompter situation. mais booy lijjanti décompter situation kay li nga jëkk a def mooy métti lu li dal nit ñi. parce que ñu koy peut lan moo leen métti ñoom. dee moo gën a fort di. wallaay xale bu ñu xool dóor ko ballu pistolet. ci bopp mu ñàkk bakkanam landing camera denc nañ ko tey.

moo tax réew mi xool leen fan yi ñu créer tension bi ni le président Macky Sall en tenant un propos samedi passé bële dindi élection yi tal na dëkk bi na dëkk bi président président balma rek billahi bu bul mer bul mer ci rek nga balma sa dom sa jarbat sa sa xarit moo la kaa wax nit ko la wax ak aw cette décision là a rendu la situation puérile ñu né légui dañu solution ci lool ça veut dire que il fallait juste rester, respecter la norme constitutionnelle. La situation de Karim Maïsawad, les deux juges, plainte amna, enquête parlementaire, La preuve, binti pareni, tay lunti waxati, dara. Donc, conseil des ministres hier, ils n'ont pas parlé de loi d'amnistie, ils don susurré Fanny apparemment, mais parce que simplement, il ne s'agit pas d'amnistie quiconque ou un quelconque que ce soit. Il s'agit juste de rester sur la norme de la réglementation sociétale de ce pays-là. ñu doxal dëgg rek jàmm ne ñooy jarul tricher jarul dara nguur bi fi nekk nag dafa war a dem mais daminam daf ko war a rafetal hélas mu ngi def dans le sens de toujours chercher ay ay pexe yaa ngi naan lijjanti mhm. jamono bi du jamonoy lijjanti. mais man loolu laa gis dama gis dañu pexe. maanaam day wut situation bi ni mel nii. situation bi daal lenn kaa lijjanti soxna si yaa Seyda situation bi lenn kaa lijjanti. libéré Ousmane Sonko ak Diomaye ak Fadilou Keita ak. Euh, Ami Dia ak parce que lan lañ téye new fa. nga baleen ñu dem. bu condition. pour lan. looy doyee condition. condition baa ko tegee rek mooy bëggoo jàmm indi nga problème mooy yaa ngi utaat pexe encore.

toog naan waaye li ma lekk bëri waay yow utal ma seven up seven up <laughs> ah, ba ñuy amoon seven up nga utal ma sprite waaw parce que wuulu la uuf waay chatëtëtëtët loolu ala lagara daa lekk tuuti mo li nga wax nii ne na bàyyi ñëpp réew mi dafa war a neex soxna si. yow yaa ko euh, sama baay boobu man nuyu. sama baay boobu man nuyu xam nga sunu bàyyi la te da la tek natu ci aduna yalla na yàlla sàmm ko jafe-jafe bu ni mel danaka liñu tumal Ousmane Sonko tumaaloon nañ ko France waaw voilà harcèlement sexuel détail ay ama ay tuma mom ku ne lay dal mm. donc ni mu dalé Ousmane Sonko li non noonu la ko dalé won motax tax dañ kaa masawu aussi mom tamit ci situation bobu et puis di wax euh, di ko wax ne ko ne ko loolu ko dalal non mo dal Ousmane Sonko par conséquent euh, nañ ci rafet quoi euh, il fut député du peuple euh, maintenant il est devenu l'avocat de Adissa. donc après par la suite euh, la situation là libérer Ousmane Sonko et les autres su fekkee neexu ko ah non neexu ko ah, non dafa war parce que moom bi mu situation bi en France dañ ko dañ ko dañ ko libéré que euh, def na deful ko bàyyi mu dem te la ko bàyyi mu dem la tax ñu bàyyi ko mu dem ak la ci ay nit taxaw pour lolu am donc tey bu ay nit taxawé tam pour ñu libérer Ousmane Sonko quoi de plus normal dafa ragal pas dafa ragal même bu bëggul ñu génnee Ousmane Sonko ñu né ni parce que xalé yooyu bon Sonko ak ñu andal àndal day taal dëkk bi. mais ni tapu non li li ah, mom kay candidat tam bobu client tam bobu mo taal dëkk bi. Adji Sarr Adji Sarr moo taal dëkk bi waaw lolu moy dëgg amna lo xam j'ai pas envie même El Hadj fond le respecte beaucoup on n'a pas envie de voilà di effriter wu ak mom mais bu baax nous tu nous parles de de de perspective alors en termes de perspective au vu de tout ce qui se passe xam nga de 2012 à maintenant de 2000 à 2012 de 81 bi Abdou au di Sénégal falu nek président à 2000. de 1960 on va dire 58 60 à 81 bi fi Senghor le Sénégal a vécu au moment où le Sénégal était euh, indépendant en 1960 nous étions plus pays <laughs> PIB à la limite nous plus riches riche la Corée du Sud aujourd'hui nous ñu un ci niveau Nous ñu may sur 30, 40, ans 50 ans nous avons pas-pas liggéey Nous avons manqué comment faire pour y parvenir comment faire pour changer la donne parce que li fi y a tellement de problèmes en 2024 Sénégal est ci niveau où nga nga may xool naan ma sarap Sénégal est le en ça c'est-à-dire que on est on est dañu bas de gamme donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change ce sont les perspectives c'est très simple yàlla le a may beneen njiit buy le après président Macky Sall il y a moo qualité de travail ñi fi très importante ñi jot a jaar Senghor ba fii ku si def nga ka si nekk la nga def am na fa xam ne fa yem ñoom yaa sayda ña sa des tu comprends ñoom Binta ñoom ñoom ñëpp ah. moom elle vient xam nga pour xam li xew ñi ñi fi jaar ñëpp président yëpp ka si ne def nga ba ci le président Macky Sall waaye soxna si ba jeexee jeex na ba jeexee jeex na léegi nag waa def na mais def na li mën ba jeex a jeex perspective il nous faut un chef d'État super méga terra intelligent tabe réew ba ko timé da joxé sa loxo ba talé rek réew ma nat ndax gàncax gi ak niir wi tém ni ni dëkk bi Sénégal nañ ma bu nu fal ku ku nay dé mais joxé kan lay jox kan. ah déglu ma. waaw faw nu fal ka am yërmande tabé si xol la nek. li naan waa ab tab la soxna si ab tab la maanaam nga nekk ka yaatu dënn ka nga xam ni say sa sa gis-gis dafaa sore tamit nga ne ah Sénégal kat 60 ba tey ñu ngi dundee nii waaye Sénégal léegi dañoo war a jëm ci kanam Sénégal léegi nit ñi dañoo war a dund dund normal nan laay def ba ñu dund dund normal ñu ne la ah pour nga dund dund normal il faut nga am souveraineté économique mm-hmm. sécuritaire donc militaire souveraineté éducative ou socio-éducative, d'éducation, d'école, d'instruction et surtout de valeurs et de vertus, de bonnes mœurs, de refus de la dépravation des, des mœurs. Mhm. waaw léegi loolu pour nga def ko xam nan ngaa def daa lekk ba mais pour nga lekk ba suur naan ba màndi daa bay baa bayul do lek do naan parce que lepp bu dana jóge ci biti dana la coûter cher kon dang ka kaa wuti dang ka war a si génn se battre se battre comment avec les populations les impliquer l'inclusivité c'est quoi dire aux populations écoutez nous avons tellement d'opportunités et de possibilités nous, sommes dans une terre de plus de 160 000 km avec des zones arables à en finir non encore exploitées mm-hmm. par conséquent nous nañu bay Sénégal kon nanu ferait am autosuffisance alimentaire nous ñu en 2017 que le président n'a jamais réussi à faire comment faire cela nan le def autosuffisance alimentaire il nous faut une irrigation nationale canal du Cayor Le parti socialiste donne autant ngay refaire revenir ce projet là Donc, di fait fêtes, petit Sénégal on a de l'eau partout au Sénégal nappe phréatique bi la fleuve Sénégal fleuve Gambie ma ngi fess donc qu'est-ce qu'il faut faire Fexé un mi tas ci Sénégal ñuy bay toutes les saisons mu bañ nek nawet ak nawet lolu amul. Mm. Israël dëkk la doj la irriguer deuk ba yeb di bay bay exporter. Mm-hmm. Kenen nous non lan ñuy Sénégal nit ñi wara jënd orange Casamance di jënd orange Maroc. Non, non man bu Maroc ah, parce que c'est bien fait nangam nangam nga baka fa ba Sénégal bi jënd il faut la culture. mais j'ai l'impression que c'est du en fait déjà déjà entendu. L'anti. discours c'est beau en fait c'est très beau c'est magnifique mais nous nous sais pas, c'est un discours qui nous Non, moi je dis une chose très simple. Ah, des fois, les discours là, est-ce que nous, comme Koutob, de un match Parce que nous avons une genre de situation parce que des fois da discours. quoi maîtriser au y' y' a certes. une fois ci la réalité mais tu changes carrément de. parce que

pousse leen ci culture du travail mais pour loolu foog nga ne leen gars yi kaay nous nu bay kaay leen nu bay lu nu dundee lu nu lekk ba pare même pas pour exporter mais nous bay lu nu dundee ba pare après ñu xool nu ñoo def am nga du fleuve zone boobu def ko une zone purement industrielle du riz du mil de tout ce que tu veux mu yaatu nga def fa agroalimentaire bu à transformer et cetera après nga ne ma non xaalis bi fan lañ ko mën a jëlee ñu ne la nous xool à partir des niches de possibilités qu'on a financière moi impôts yi fu moo jaar am priorité am na fu a dem noonu nañ ko nañ budget au Sénégal en grande partie def ko ci agriculture par exemple perspective là. nañ fexe par exemple nos pétrole nos gaz ak la ca des ñu nekk ci perspective fa ñuy 10 nangam ak nangam ñu ne non la moitié au Sénégal au moins un temps soit peu un investisseur qui vient pour parce que dafa soxla sunu or les checker Kédougou ñu ne ko sëñ bi li woon wóni na mënatul ne léegi or bi ngeen di jël fii altine ak alxamis bu nekk di yóbbu sénégalais yi di tumurank non non non c'est fini ça mais loolu président bu am dayo moo ko mën ba pare nag am fit <laughs> ay bu amul fit faw mu nekk ragal yàlla pour mu am fit nag day ragal yàlla yàlla rek ngay ngay ngay ragal pour mun a am fit contre autre